dégg moo tax lu coow yi bare bare kenn ku ne dellul wax ak sa nga toppatoo lu keneen yendoo ak lu keneen fanaane dellul ci sa conscience pour laajaat sa bopp yaay kat waaw ah. puisque xam nga am na ku nga xam ni euh, boo nekkeek moom dafay am lu dootul jaatu Muaaz ibnu Jabal jëfandiku na bés ci kanamu yonent bi kanamu yonent bi lendam lutax mu lendam moy bobu mom jàpp na ni ki mu yar warna bokku ci ulaika hum xayrul bariya kon nag bu jëfandikoo yonent bi xool ko ni ko antam ru'un fii ka jaahiliya kon day mel ni li mu defoon ci moom dafa yàqu moo tax sauvegarder apparence yi sax farata fa tabarakallahu junj nañ leen ci yu bari ci waxtaan yu passé gis nga kilifa ak déggam ëpp na moo tax il attention ci jamono yi mu daan ñëw gàmmu Tiwaawan maanaam ca gàmmu yu jëkk ya te bu ñu gàmmoo ba noppi mu xëy toog ci salle bi di recevoir délégation yi ñi ñaan werd di ci profité ñaan werd ñi yeeslu di ci profité pour yeeslu ñi am soxla di ci profiter pour ñu ñaanal leen mu am benn jeune bu ñëwul toog ci kanamu góor gi ni ko man dama bëggoon jël werd góor gi ni ko tàllalal sa loxo fi muy tàllalee loxoom ki doon jottalil góor gi comme mu ngi taxaw mu seen benn paquet cigarette ci poche kiy ñaan werta mu di ko i daal di dugal loxoom ci poche bi génne paquet cigarette bi ni ko lii nag gi xool ko benn regard ni ko delloo ko ci poche am mu tiit delloo ko ci poche ba mu ni ko bu ma ko mënul boole ak paquet cigarette bi yóbbu aljanna kon li ma mag ñi doon wóoloo matuma ko wallaay ndeysaan wax na dëgg nee na góor gi sëriñ Pape Malick daf ko doon wax ni ko man ku ma ñaan werd te fekk ma yëg ni dangay tux duma la nangoo may werd dangay bàyyi tux ba boo ko bàyyee ba noppi ma soog la ko jox nee na góor gi ni ko ku la ko laajati même bu dee tux jox ko ndax suma turandoo bu ko yéenee tariqam xam na fa muy jaar ba dootul tux ah! gis nga wara te bou bay defa am loukou gen di farat me poukwa ny wout avoka kwenel justis ni moudise kwenel lwa ni moudise me te woul ny wout avoka pou moun interpreteko pour que diisaay bi du tebu ci yow wa kon buñ ko gëmee ci walu aduna wara vous ni ci walu yalla la surveiller langage n'est que farata sama mbokk bii toog soxna pëleel fal bii man ko nettali góor gi moom laa leen waxoon ca gàmmu ga ni moom la góor gi doon wax naan dafa nuru ak soxna Fat Kunta lu daan def léeg-léeg bu toogee rek wax ni il y a sëriñ et sëriñ waaw ah, mu je persiste et je signe ah, wax na dëgg waaw ah, gis nga solo nit ñi wër la comédie gogo. mais ku jog mën nga ko am na ñoo xam ni seen àdduna yépp pour mu tukki mooy nga ni leen kay leen dem ca nit ña bu ñu ko defee rek booba dara desatu fa da ngay def lu ne da ngay dem ba da ngay dëgg rek ci cofeelu nit ñi ak seen yaakaar bañ yaakaar bi tas mooy tax nga di ko nangu waaw waaye ku xam responsabilité doo ñeme rek mbooloo ah. moo tax nag ku yebu ti tey ci jamono Parce que qui est tout à l'heure, je suis un journaliste. Je suis un collage. Opposition est méga et Parfois, nous avons encore la population. Parfois, nous avons encore le milieu politique. Parfois, nous avons encore le milieu religieux contentieux yoyu Kawaral, waral parce que avant avant les autres parlent et le journaliste écoute mais aujourd'hui c'est tout à fait le contraire c'est les journalistes qui parle et les autres écoutent ah, ah. mu ni opinion yi opinion yi faf na opium du peuple motax kon nak laaj na journaliste yi wut leneen lu ñoo tudde pilule culturelle pour di ko saafara opinion yi lu ko moy bu àdduna di tukki kenn du xam nu muy dem ndax xam nga dafa am ku ñu fekk benn château bàyyi leen ko mu jooy <laughs> lu normal la lu normal la dafa fekk château bi daanu mu ni château bi daanu ku ko màbb ñu ni ko weñ weñ màbb ko give me unity. Mokomabo. وكم وكم خرب النمام وكم خرب النمام من قصر مشيد بشفتيه لا بفأس من حديد حسان وكم خرب النمام من قصر مشيد بشفتيه لا بفأس من حديد متخبرين اللمب تفك وخونتك مب متخفين كي بي جمونو war nañu seet nu ñuy dimbalee nit ñi parce que risque yëpp risque yëpp dajaloo na bu dul rekk mbaaxu yàlla àdduna tukki loo taxoon Abdullahi ibn Umar wax ko ca aaya ba waaw walaw laa dafcu llahi nnaasa bacduhum bi bacd waaw kay la fasadati waaye li taal fépp li taal fépp bu taalul fa nga ne war nga xam ne am na ko yàlla ruus ki yàlla ruus nag yow mii jaam nga ruus ko farata la ko defee kon nag mag ñi wàcc nañu lay ndeysaan wolof yi ñooy wax ni kenn du namm foo miinul ah sëriñ Cheikh bés am naa li soxna Ndey Kumba wax ni léeg namm gi day yegg fu nga xam ni nga di ñu may léeg-léeg dafa ma dal bés ci góor gi ñu toog benn diir gisewuñu ba ñu gisee ndeysaan ñu di ca waxtaan mu ni ma mu sëf ma ne ko mu ni ma bu namm dul am cofeel du yokk tubarkalla eh waaw mel ni xam naa waxtu yi sax faf na passé waaye rek kon ñu bàyyi xel waaw waaye kenn du nam foo miinul waaw sa baat boobu mu wax ni bu nam dul

قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني آه، تبارك الله ويركنا كو منا سالتي تم فوق سالت آه. لكن نك لك سخول يا كخم هل من سبيل هل من سبيل إلى سلمى بيبريني ذوق ارتحالي إليها كان يبريني ها معذب القلب من لذع الصبابة بل نار البعاد على الأحشاء تكويني كأن شبحي ملقوط المفاوز مثل ديجلولو أه؟ أو صار منعدما من بعد تكويني سرين بابا كارسي نمو شيخ نمو شيخ بمنو تكو مون موي واي ريك دي واي ريك نواي واي دفا ام كوما نمو واي لو تي مان دا أه. نكون نك كو سالتي تم ايول yal na yàlla dolli sutura yal yàlla def tawfiq yàlla yàlla faj ajo bii rek aajo biti yal yàlla dàqal leen lu ngeen ragal yal na yàlla tetti seen lépp ba ngeen am ca ndam te du ngeen ca sonn yal na yàlla yiir leen ci biir yiir leen ci biti yal yàlla sàmm sàmm ku ngeen am yàlla na ngeen yegg niw yoon te yegg fa ngeen jëm wa ñu ngee gërëm ah ay sàmm ñi fexe lii am ah ëpp naa xeet daan nañ ko def sax ci dat bu gën teel waaye bi yoon dafa fekkoon mu xaw xat te comme ñoom dañuy ñaan ñun ñi di ko fekk ma taxoon rek ma waxoon Babacar ne ne ñu bàyyi ko ba beneen jamono bu gën yaatu tuuti bi ñu jógee ci dëj bi ma ne ko jamono dafay xat te léeg-léeg ñun itam yeneen soxlañu kon nag ngeen profité ci janvier bii rek ngeen def ko wa tabarakallahu ñu def ko yàlla def ci sutura ak ndam yàlla na yokk ñi ngeen ko séqal ci cité bi itam wa yàlla na yàlla di leen gën yiir wallaay ndeysaan wallaay ci laa jëm sax wallaay ndeysaan tabarkalla bu ma waxee ñi ñu bokkal cité bi waxuma bokk hmm. daayira waaye am na ci ñu nga xam ni am nañu seen tariqa am nañu seen sëriñ waaye lu mustarshid daj ci daje bi daj nañu lu lu ni toll ndax yàlla ak seen bëgg diine ak seen yàlla ak cofeel bu ñu am ci sunu kilifa waaw moo tax na kon nag ñu ngi sant ñëpp ilimaan yeeg intellectuel yeeg tabarkalla commerçant yeeg ñépp kenn ku nekk ci sa niveau ak la nga taxaw yal na yàlla fay la lu ëpp sa njort wa tabarakallahu ñu ngi bàllu rekk rek ah, cofeel dafa metti ah am na koo xam ni loo denc pour moom rek denc na ko pour yow waaye li nga sañ daf ko sañul waaw loolooy tax sëriñ Fadal bii maa ngi jot leetaram ci gannaaw wax yu yiw wax yu amul moroom moom la ca wax waaye lu ñu xalaat rek ci ñun xalaat nañu ci yiw lu ni toll pour ñoom nag ñu di ko sant di sant nawle yi mu ko bokkal ci wàllu tariqa murit fa tabarakallahu ñëpp kenn ku ne dëkk bi koo am rek koo am gis nga ko waaw te bu ma nee koo am nag ku sant si taxul ma wax waaw ku sant si ku sant Mbàkke ku sant Ñas ku sant ñëpp gor yu baax yépp kenn desul te ba léegi jeexul bari ki démb rekk badam mi mu ngi may indil ay list yu dul jeex waaw ku ne di ñaan ni rek may ñu ñu yegsi waaw ndax yóbbante woon nañu sax waaye bu ñu sañoon rek waaw yegsi ba ci yow jaaleel la sunu bopp ndeysaan waaw ba ca sunu way jur ba sax na kinne mii ñu ngi ciy waxtaan ci gannaaw sunu way jur ba laaji Mamour Ñang ba nekk Paris te nekkoon nag góor gi maa ngi jot lettre am démb Baye Omar mi moo ma ko yónnee tabarkal la ñu baax ñëpp ñu baax ñëpp kenn desul kon nag ñu ngi sant ñëpp ci biir ak ci biti ñu ngi ñaanal ñëpp yàlla nañu yàlla boole yiw yi lii ku ko teewee ren yàlla na la yàlla may wér ak barke ak sutura boo ko teewee ay at te fekk fi ñi nga fi nekkoon waaw wa tabarakallahu ña dem yàlla yiir leen ci malaanu yërmandeem te wàcce leen ci bërzaxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw dama yor sama portable ci suba am benn tur bu may seet ca Paris di ko xool di xool liste bi di ñëw di ñëw ba yem ci turu Sofeetu Faal man yi duma ko dindi dama ko ci bàyyi parce que am na ñoo xam ni demuñu waaw ñu ngi fi ñu ngi fi demuñu waaw nga tax na tabarkal la lu am solo la waaw yegg ci pas-pas fu tax ñu xam ni demoo yaa ngi fi waaw nga tax na kon nag nañu ñaan yàlla rek yàlla di ñu baaxe rek li ñu ne ñu di ca ne parce xam nga sunu borom bi mu waxee ci alquran والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار tudd mag ñi nga xam ni bi lislaam bi ñëwee kin jëkku leen ci réyoon na ca mag ña ريون نتي ومكي تنوي المهاجرين ريون نتي ومدينة تنوي الأنصار ويالا بانيو دفني بريوريتي بي موي نجيكا اديري موتاخ مو داباتال اولي والسابقون الاولون مفخني والسابقون السابقون اولئك المقربون pour ñu bañ defe ni njëkk a mooy tax nga ëpp la ñëpp fekk wasabiquuna gu jëkk gi yàlla neena am na loo xam ni ku ca dugg xam ni sama mbaax ok gu jëkk gi mooy wan ñi dugg ci lu baax ni yàlla leen ca boole ndax sabaqat lahum minna al koy bu jëkk bi yàlla la baaxe nga bokk ca kon jar na sant saabiquuna bu mujj bi nag sa joma te mooy fas fastabiqul xayraat waaw am na loo xam ne boo jëkkee ñëw ak boo mujj ñëw yëpp wala kenn ëpp yiw lu baax lu nit ñi def rek defal lu ni toll te bàyyi nag ak yàlla loo tax na kon nag ña ñëwoon démb ñi ñëw tey ñi bëgg ñëw ëllëg yépp yenn yàlla sàmm sàmm paspas pas yi sàmm ngor yi sàmm yiw yi sàmm yaram yi kenn ku ne yàlla bu la dara lu ñaaw dal ah ci barke yonent loolu rek lañ doon ñëw pour wax leen ko ci bëccëg bi jot amul waa cité bi nag ñoo wax ni nañu leen santal Babacar Thiaw et à lui tous les superviseurs yi nekk ci daayiratul mustarchidin ci seen taxawaay ak ci seen jàpp ci liggéey bi mu mel ni julli gi jot na te tabarkàlla wallaay bu jinnee soxla daqaar ku yéeg daana te woote nañu ci jàkk ji ba noppi dafa am ñu bëgg a jël werd nañu tàllal ñu jox leen ko ñu pare rekk ñu joxe ñaan ñu ñaan ko li xew ci réew mi Seyid Cheikh nee na ngeen déglu ba mu wax ak man bu waxee man ba noppi ba ñëw wax ak yéen ñiy jël tariqa bi nañu tàllal seen loxo te def seen yéene ci barke yonent